chers internet yu enquête 221 dal leen jàmm dal leen jàmm ci li gën a fës ci ëtt yëglekaay yi ñu commencé kook réew mi quotidien bi dellusiwaat ci élection législative yi ñu jëm yéenekaay bi ñu xamal ne bu du moytu xeex ak xuloo dong la ñuy commencé bi dellusiwaat ci wàccaay gi te ñu xamal ne manifestation bu rëy la waaye askan bi woote le 29 juin bi ñu jëm lii moo tax yéenekaay bi daal di dalal maître Abdoulaye Tine mi duggaat ci biir situation politique bii te ñu xamal ni manifestation yi ñu gis bu fekkee dafay yoo xamante ni au lieu ko ñuy gis ay leader yi joxe seeni programme waaye dàggasante xeex gu métti la ñu nar a ji direct news ubbi ci xët bu yaatu dala laaj jóbu benn bokk yaakaar yéenekaay bi sax ak moom waxtaan rawatina ci coow Ousmane Sonko législative yi ñu jëm ba ci coowal troisième mandat bii laaj di xam ne ci biir yéenekaay bi ne man damaa mosul gis ci Sénégal gii laal wax ku gën a liggéey président de la République Macky Sall laaj jóob di xam ne ci biir yéenekaay

boppam def déclaration ne soit dañ koy jàpp boog ñu rey ko waaye dana génn man da xam tama du Ousmane Sonko mooy bu fekkee dafa bëgg ñàkk bakkanam amul problème bu fekkee itam dafa bëgg tabaskee ci biir kaso bi itam amul problème ndax moom laaj jubbu benn bokk yaakaar mi nga xam ci biir yéenekaay bi ne yëpp bi ci boppam ñooy bëgg sonal nit ñi manifestation suba ngoon guddeeg bëccëg lii nag dafay dakk su du quotidien ne en monsieur le maire Ahmed Aïdara ñoom ñëpp ca biir kaso ba jërikaay bi ñu xamal ne tey la am audience spéciale parce que yéen jàkkaarloog bi mu daal leen di tracel comme ça ñu mën a xam est ci biir kaso bii la ñuy waaw wala déet la tribune yéen kaay tuddee ko jour de vérité nit di jëfal Ahmed Aïdara ak Mame Diarra Fam ni ki jii lañ leen war àtte ñu jàkkaarloog juge bi leader yi yow bi na ñoom duñ ko tardé te sàkku sunu corniche bi yéenekaay bi ñu xamal ne ci jamono boobu de hôpital bu jaxaay depuis fukki at benn ba léegi si mënul dox maanaam la ba dañoo jommi jaaxle lool et pourtant un milliard trois cent mille dong moo ko teree dox enquête yéenekaay ne ki dox la kay dëgg moo di président de la république bi mu demee ca Tivaouane ci week-end bii yéenekaay bi ñu xamal ne ci centenaire Cheikh Hadji bi nga xamante ni ñoo ngi koy amal jamono ji ca Tivaouane président de la république dafa demoon jàkkaarloo xalif général des am ca biir Tivaouane waaye yéenekaay bi ne président kontaan na lool ci kàddu nga xamante ni kilifa diine yëkkati nañ ko xalif général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour moom ci boppam moo yëkkati ay kàddu lépp ngir mën a dalal tension bi nga xamante ni fi mu toll nii mu ngi ca tu ji sàkku ci président Macky Sall nag muy waxtaanee réew mi di ko péncoo te bañ a def lu ko neex président Macky Sall yëkkati fa ay kàddu tey xamle ne ak lu ci mënti xew am na ay frontières yooyu lañ bëgg a jéggi lii moo nar taal Sénégal gii te nag yéenekaay bi desuwaat ci kàddu xalif général des Tidiane Serigne Babacar Sy Mansour mi xamal président Macky Sall ne ko lépp luy xew nag ci biir réew mi yëg nañu ko waaye leen rek lay sàkku ci yow tamoo di bul wax mën na la bul wax bul tontu kenn koo xamante nii mu ngi lay sànni traak képp ku suñu borom jiital la di am ay baatu ginnaaw waaye man daal Sall ngaar leen rek laa lay ñaan mooy bul tontu te gestoo yéenekaay dàll ñu sol jamono ji moo di taal réew mi waaye nag man duma ko ragal wax bu yeboo sax ñu ne Tiwaawan ji lañ ko waxee moom Serigne Maodo Sy Dabakh di xam ne ci biir yéenekaay bi ne kaddu yi ma yëkkati laal wax ku mu naqari nga dem naani géej waaye du tey dinaa ko wax ñii bëgg taal réew mi laal wax moomuñu réew mi nañ leen xamalaat seen bopp tegaat leen seen place Serigne Maodo Sy sàkkuwaat ci président de la mu xoolaat bu baax ay décision

am na sax ñu doon jéem di ma jaxase kilifa diine yii naan man maa doon wax ne ñoom ay simple citoyen la ñu président Macky Sall li ne mel tey xam ne nag man damaa wég lool nag kilifa diine yi yéenekaay bi desuwaat ci pose première pierre bi nga xamante ni moom moo ñeel hôpital bu Tivaouane bii nar a nekk ci troisième niveau yéenekaay bi ne bés bu paree nag ñoo ko nar a tuddee Cheikh Hadji Malick lii quotidien ne ñi doon wax ne kilifa diine yii nañu wax léegi nag moom waa Tivaouane wax nañu ndax bu ñu leen déggee ci week-end bii ñu génn jàpp nañu ne Macky Sall fi mu toll nii mu ngi ci yoon wu baax bi man la Tivaouane bi nga xamante ne ñoom ñoo bëgg a taal réew mi yéenekaay bi ne fi toll nii Tiwaawan laa la wax xàkku nañu Macky te koy encouragé ci yoon wi mu jël seeni ko gungee na ngir yéene mën a mat ci biir réew mi Les Échos yéenekaay ubbi ci xët bu yaat ne Macky bu fekkoon ne mu ngi doon tiit ak rappi rappi toll nii nag dafay gën a am fit ndax di Tiwaawan dañ koo mujjee gonflé maanaam encouragé ko xalif général des Tidianes di xamal Macky naa lool ndax sa discipline sa ak sa sérénité yéenekaay bi des ci kaddu xalif général des Tidianes mii xamal Sall ngaar yi ne ko mën a la man maa la ko wax doxalal bu la kenn yàqal sa Serigne Maodo Sy Dabakh moom di xam ne ci biir yéenekaay bi ne li ma lay conseillé yow président Macky Sall mooy rek nga rester serein saa yoo waree jël décision nag amal sa fulla ak sa fayda jël décision bi waaye bu la ma sàmba déranger bu la ma demba déranger yéenekaay bi ne gis nga booy seetlu Serigne Maodo Sy kàddu yi mu yëkkati ci kanamu président Macky dafa mel ni opposition bii la doon gaaral di leen xamal ne li ngeen bëgg mënul am ci réew mi ndax bu ñu a taal réew mi moo Medina Baye de moom kami encouragé moo di Serigne Mboup ak Baye Ciss ndax bu ñu sukkandikoo ci Cheikh Mahi Niass mu ngi xam ne ci biir yéenekaay bi ne ñoom ñaar ñii doy nañu référence rawatina ci Sénégal yéenekaay bi desuwaat ci cérémonie ba xewoon ci ci centenaire Cheikh Hadji Malick bii tañuy xamal ni ñu doon laaj Serigne si ñu wax fi mu nii nag Serigne sa wax nanu nee nanu Macky lañu àndal lii moo xew ci Tivaouane ci ay détails yu gën leer nag tañuy xamal ni xamante jël na ko xalif général des Tidianes di xam ne ci biir yéenekaay bi ne ñun gis nañu sa taxawaay liggéey moo la tax a te yaa ngi liggéey nag fi mu nii kenn mënul wax ne liggéeyoo ñii di la ngawte nag fi mu nii ñoom xamaguñu la nañu xaar rek ba ëllëg ci la xam dëgg dëgg liggéey bi nga def ci biir réew mi li may sàkk ci yow nag ma di ànd ak dal ànd ak njéggal di jéggale te jëlale lii dong laa lay ñaar fukki at ak mu ngi xamal sax ne nag marié la waaye nag dafa musul am doom moom Siré Dramé mii origine am nag mu ngi jugee ko ci garde à bi des ci lan moo ci turu bébé Aïda moom Siré Dramé ci biir yéenekaay bi ne xale bi dama koo gis mu rafet lool aw ma woon nag benn yéene bu xale bii ndaxte aw doom bëggoon ko jël dugal ko sama kër def ko ne sama doom bi ma ko gisee ci mbedd bi nag moom dong toog ci laa ko fob nag jëmale sama kër enquêteur xale bi moom Cyril Dramé di xam ne ci biir yéenekaay bi ne dama ne ko kaay ñu dem ci boutique bi ma jëndal la bonbon bi ma xale bi toppee ba ma jëndal ko bonbon ba noppi ci laa ko fob jëmale sama kër Cyril Dramé yemul foofu ndaxte mu ngi xam ne ci biir yéenekaay bi ne yàlla moo ma natt ba ma dalee sëy ba léegi musuma am doom ñaari ëmb dong laa musoon ëmb te ñaari ëmb yëpp dafa mujjee yàqu te temps bu ndaw rek bi ma def ak bébé ay demi dafa mel ne sii que man maa ko jur moom Cyril Dramé di xam ne ci biir yéenekaay bi ne ay weeri weeri weeri ngi nii damaa amoon naqaru xol lool ndax ñàkk gi ma ñàkk doom dama daan jënd sax ay yére bébé yu bari di ko dugal sama néeg jàkkaarloog yére yii te awma benn xalaat nag lu dul wut doom rek boo xamante ni moom laa koy solal yéenekaay bi des ci xale bu jigéen bi nga xamante ni jaaykatu yére la nu mu def ba daal siiwal Siré Dramé mii ne def doon jaay yére tabaski ca biir këram fa la gisee xale bii mu daal di ca biir kër gën ak jubali police nii la police duggee ca biir kër Siré Dramé yéenekaay bi ñu xamal ne lépp nag ca biir Pikine la xewee même Siré Dramé mii génnul woon ca Pikine waaye yéenekaay bi mu ngi xamal ni fekkee di mu ngi ci kaw waajooju tôt ou tard nag moom danañ ko jàpp ah Sénégal de mu ngi nii moom nit ya ngay nekk ci stress ñuy profitoo ci sa stress nag moom di commerce lii ci biir réew mii am ah, baax na nañ ci bañ a wax rek ñu yendoog jàmm ba subaak jàmm incha allah